loolu si laqasu quoi ndax le 25 décembre la woon mu jaar ñu leen le 13 mu yàq léegi ñu fi toog ñu ne le 27 ah xëy na yàlla sottil ko. ba ba ngeen yëgee blessure Modou Lo bi ban réaction ngeen am boobu. waaw dama ba nga ko yëgee de ah mbër mbër moom mbër blessé moom loolu moo am na si mbër quoi. waaw waaw dañuy toog dëgg comme dëgg nañ ko rek bàyyi toog dëgglu rek après CNG bindil na dafa blessé fi mu toll am deux ah. ba mu wér a bëre ak moom wala Ama libéré nañ ko pour mu jël beneen combat. libéré gu ñu ko bala ñu koy libéré il faut Modou Lo wax ne mënul bëre ndox ko libéré. est que xa toog bu yàgg bi ak xaar bu yàgg bi dina arrangé ki nga xam ne mooy Ama. waaw xam nga ba xaar nga combat bu taxaw peut trois ans yi nii ngay toog di xaar dafa métti CNG mu waroon xoolal leneen moo war a xool leen ndax mbëri il faut seen see protéger leen ndax nga toogee trois ans di préparer li nga am nga préparer sa mbokk yi préparer lamb jee yàqu ñaari mbëri doon leen doon demancé dara promoteur moom mu newoon la nekk rek toog kon seen see day mel ni si promoteur bi la far de te daa war far si mbëri ndax mbëri lu bon bon bon waroon leen dampee dara sax ndax kii blessé na kii blessé ñoom ñu préparé nañu seen see waroon na jël damp leen promoteur waroon na jël damp leen waaye blessé nañ rek ñu toog promoteur bi doon leen dampee dara pare pour taw bi amaatee Modou Lo mënu bëri ama day toog dafay amal promoteur bi beneen combat loolu pertement la am bu ama dees diggante bi nag ku koy fay combat bi ah waaw nañu xool mbër ba bëreetul mënatul bëre gars ñu ne mënatul bëre nañ ko den ama ko dédommagé wala ñu jox ko li mu war a moom ñu jox ko moom mbër bële beles ñu jox ko li moo moom dafa bëggoon bëre mu belese moo ñëw dañ doon dégg ñu ne Ama Baldé Gris Bordeaux dafa taxaw ñu commencé dégg gars yi di wax mais ba ba léegi dégguñu nga def ci benn sotti waxoo ci dara kon combat ba mën nañu jàpp ne taxaw non fi mu toll xam nga promoteur yi moom ñooy xëy na taxawal combat xëy na waxoon nañ si Gaston bu yàgg waaye ne waxaatu si après xëy na nag ah mun na nekk xam nga yéen journaliste lu bëri yéen a ko mun a xam fi toll muy Ama moom xale la day entraîné matin soir bu yàlla boole war a bëri day bëree yow loolu la moo si nekk. ci diggante bi bu ko CNG libéré pare ngeen pour jël Gris Bordeaux. bu ko CNG libéré bu ko CNG libéré waaye jël leer na mënul bëre. bu CNG libéré nii jël bañ a jël Gris Bordeaux ay dugal Gris Bordeaux ak ñeneen ak ñeneen. kon combat bi taxawagul. taxawagul. dëgg la loolu lañ bëggoon a leeral tey. si bale combat nee na combat boobu taxawagul ama jëlagul avance Gris Bordeaux. waaw jëlagul avance Gris Bordeaux waaw leer na nañ. waaw. ok.